sama papa daal moo fekk sam benn copain mu tëj ko nekkul ci yoon ba pare dañ ko tëj foofu daf ji jiñ viol man mii la ko jiñ ni man la viol bi ma génne dama jël sama bagage ma dem Dakar fa demee sam papa ba tey ma lu jëntiwu ma dafa ñëw rek dem porte plainte ko ca amu ci preuve dafa ñëw ne dafa violé sama doom bi ma wooyee ma dem ñu laaj ma fekk moom laaj nañ ko mu ni man kat xale bi dama ko bëgg te tëdd naa ak moom te may tëdd ak moom man Pape Demba mu a sama comme ça daal fekkuma ma nekk xale ah? place am la tëddee ak man mais du leen loo xamante ni naqari na ma ca léegi ñaari yoon la ma sa àgg sama kaw place am te bu ci nekk bu ne dama ci ànd ak sama conscience tranquille forcé wu ma defuma dara waa man la neex bi ma waxee lool sama papa fekk man bi may jàng def naa jugement bi may def bi ma waree dem jàng sixième bi may def examen dama def jugement ñu defal ma deux mille cinq bi ñu ma defalee deux mille cinq léegi sama papa boobu la dem récupérer këyit boobu la dem récupéré ñëw ni mineur la sama doom mineur la kii def kaa violé ba pare def trois mineur détournement de li lañ ko yóbbee viol détournement détournement de mineur ak séquestration dama ni leen violé wu ma te man judduwuma de liñ ma de juddu ah judduwuma deux mille cinq deux mille deux laa judd deux mille deux février deux mille deux ba février deux mille vingt dix huit ans dafa dëgg yàlla faraluma ko dafa sauvé sama vie sax du ñàkk respecté sama vie bu ci des daf ma jàppale trop sax mu ngi ci kaso bi njëkk nañ caa woo jugement biñ ko wooyee jugement premier jugement am le quinze dañ ko woowoon léegi ñu def ko renvoi sama papa ñëwul ñu def ko renvoyé léegi le six lañ ko war a àtte te daf may leer ne sama papa nee na du ma ko mas a may ndax kooku baaxul taxawaalukat la day wër di yàq doomi jàmbur yi te amu ci preuve ku góor kooku noonu musul gis sama papa waaw sama papa daf ko tooñ ba pare tëj ko li ma bëggoon moom ñu jàppale ma ci ba mu génn prison ci jàmm ak salaam ndax wax ko dëgg yàlla dëgg neex yàlla mais moom rek laa bëgg ci sama àdduna moom tamit man la bëgg ba bañ koy tëj di ko jàllale nee na leen Bintu Fall dama kaa bëgg nee naa ko même soo ma taxul pare naa pour respect bañ a dund ak beneen góor suur góor ñëpp toog muñ ko mais nga génn rek prison lañ koy suyee sam papa daf koy tëj du dix ans de prison mm. naa leen violé wu ma àgg na ci sama kaw deux deux fois te lépp sama bànneexu bakkan la détourné wuñ ma violé wuñ ma séquestré wuñ ma wax fa dëgg yàlla dama koo bëgg ca dafa sauvé sama vie loolu mu ma def ci sama bànneexu bakkan la ma ko defee ca bañu ma samay waajur dafa fekk ne waa ji dama koo bëgg ca yàlla tax moo tax ma jox ko sama bopp